asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala di julli ci jaamam ba di sang ci ñëpp dent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom moom mi dara tawul yàlla na suñu borom dolli def ci réew mi jàmm gannaaw ci loolu yàlla na suñu borom dolli dëgëral taxawaay suñu kilifa diine yi sàmm leen aar leen ba bépp naal gunu naal ngir jëmale ne diine lislaam ngir sàmmee ko réewum Sénégal suñu borom sottal ko ba ñu naal yeneen barki bi di ñaan suñu borom ba léegi moom mi dara tawul yàlla na suñu borom aar réew mi ci lépp li nga xam ni jub na ko ci musiba ci balaa barki bi di leen fàttali ba léegi yéen ànd ak rajo Dakar international ci seen émission bopp bi muy émission jotaayu xam-xam ci seen xarit seen soppe seen mbokki taalibe cuun bëgg baax ma nga xam ne saa su ne moo koy ànd ak di wër nag fan la njariñ ne tey nag dañuy wër ba daj ci ki nga xam ni moom lan fi njëkk dàkkantale spécialiste en faible sexuelle moom lañ fi njëkk gis muy waxtaanee xeetu jàngoro gi ci anam bu nu miinul muy kan Serigne Djibril Niang le bu des grands hommes Serigne bi nuyu nan la la bàyyi nga saafoon teeg sa soppe yi lay seetaan aouzu billahi min a alhamdulillahi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalq sayyidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ah, ñoo ngi nuyu yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy bàyyi xel saa su nekk ah, di ñaan yàlla yàlla dolli seen sutura yàlla dolli leen sàmm dolli leen aar te barkeel Eh, ñoo ngi lay nuyu cuun bëgg bàmba mm. eh, fa tabaarakallaahu di la jox sa waay mm. di ñaan yàlla comme niñ ko daan ñaanee rek lépp loo xam ne wax nañ ko fi comme xam-xam mm. yàlla mi may dégg ak topp yàlla nañ yàlla may dégg ak topp yàlla mi barkeel yàlla na ci yàlla def barkeel ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah comme niñ ko daan waxee rek dinañ ko waxee publicité wuñu woote wuñu waaye xam-xam la ñuy wax xam-xam la ñu jàng te ñaanuñ yàlla li ñu xam mukk ñu koy deewaale bëgg nañu li ñu xam fa tabaarakallaahu baaxee ko ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi lay déggu ci say laaj incha allah macha allah li mu xam baaxee ko ummatu sayyidina muhammad boo seetloo saa su ne <clears throat> discours boobu lay te nit ci ay waxam muy sëriñ bi léegi ñu bëgg wax fa wax fa dëgg yàlla dañuy waxtaane mooy mm-hmm. faiblesse sexuelle mm-hmm. sëriñ bi ñu gis ni nag jamono ji ñi ci yëngu bare na lool mm-hmm. daanaka télé boo jàpp moom lay ne léegi ñu bëgg xam lan mooy faiblesse sexuelle waaw fa tabaarakallaahu boo gisee ñi ciy yëngu bari dafa feebar bi moo bari te mën naa ne boo jëlee téeméeri góor juróom-ñeent fukk yëpp dañoo am faiblesse maanaam téeméeri góor yoo jël cent yoo jël quatre-vingt-dix yëpp dañoo am feebar bi. quatre-vingt-dix pour cent. lu ma xam laay wax. fa tabaarakallaahu ñun feebar sexuelle taxu ñoo jug. Mm-hmm. ñun ay taalibe lañu. Mm-hmm. ay daa doomi daar lañu. alquran lañu jàng xam-xam lañu jàng. fa tabaarakallaahu di ñaan. yàlla dogal boole ñu ay nit ñu baax. ñuy jëflanteeg ñoom. ñu dem ba dajee koo xam li ko yàlla may ci faiblesse sexuelle góor gu baaxoon la. amoon na xëy na quatre-vingt-quinze ans ba pare di jur doom. waaw nga xam ni tële fa tabaarakallaahu am na ñoo xam duñ tële mukk. yàlla boole ñoo ngi moom. Hmm. ñuy saafonteeg moom. Hmm. mu xamal ñu ci xeetu jàngoro bi loo xam ni fa tabaarakallaahu yéeme na. Hmm. ñu wëri ci nag am na ku naan docteur Ba. nit ku baax la mi ngi dëkk parcelle. Euh, wax dëgg yàlla yàlla may ko ci feebar bi loo xam ni. Euh, ak yeneen xeetu feebar sax waaye ñu jëflante man ak moom ci xeetu faiblesse sexuelle hmm. fa tabaarakallaahu am na ku ñu wax tamit Ousmane Traoré hmm. ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax ndax dafa baax hmm. euh, fa tabaarakallaahu yonent bi moo man amala arfan waaxida fa huwa mawlaak ku la xamal benn araf sa borom sa sa borom la képp ku la xamal benn xam-xam fa tabaarakallaahu kooku fa tabaarakallaahu sa sang la xam-xam du caaxaan moo tax ñu leen nuyu di tudd seen tur pour mu leer may ñu euh, ñu ciy ba xam ci lu wér ci kàttanu sunu borom kenn mënul yàlla rek moo mën ci ñi ciy jëflanteel. ci téeméer yu ñu jël. fa tabaarakallaahu mën nañu ni quatre-vingt-quinze yi ñuy jëflanteel yëpp wér nañu. ci mbaaxu yàlla wér. man damay faral di wax naan jox nit mu tàng léegi léegi léegi léegi loolu jarul dem ci sëriñ. maanaam tàng mooy maanaam. jox nit léegi léegi mu mën a sëy léegi def trente minutes wala vingt minutes loolu jarul dem ci sëriñ déedéet. fa tabaarakallaahu dee naa gis nga jingeer bii. Hmm. Euh, fa tabaarakallaahu ak euh, xorom polle bii. Hmm. Euh, fa tabaarakallah am na sox lu ko gën a gaaw. Hmm. lem rek. Hmm. aphrodisiaque la lem. lem rek lem rek aphrodisiaque la. gis nga bépp góor boo xam ne balaa ngay tëdd. Hmm. lekk nga trois banaana banaana. banaana. so incha allah guddi googu da ngay def résultat soxna si dana bëgg nga wàcc ko te ko wàcc. da ngaa mën nag heure bay lekk banaana. pour wan ni la tàng léegi léegi léegi jarul dem jarul dem ci sëriñ waaw. tàng léegi léegi léegi moom ku ko bëgg jaru dem sëriñ waaye wér péréñ moo jafe fa tabaarakallaahu yàlla dogal na ni euh, am nañ ci xeetu traitement yoo xam ne kuñ ci jëflantee soxol sedd damay faral di wax naan ñaar ngay dégg moom sëñ Jibril dafa naqaree jot moom loolu moom yàlla dogal na ko ndax ku mille personnes di la jëf di la yittewoo nga nekk benn nit mu nekk benn numéro nekk benn numéro mm-hmm. man doo woote ba ñu la man la doomu sëñ Jibril doo woote ba ñu man la bëkk néegam doo woote ba ñu la man la taalibe man la man la secrétaire am man maay wuyu samay téléphone ku may jëflanteel boo ma wooyee ma jaar ñi may jëflanteel yëpp xam nañ ko ci. boo ma xasee ba woo rek enregistré naa sa numéro boo ma jëflantee ma jaar hmm. xam ma yow la ñu waxante woon. ndax des fois nga wax nit ki mu la may ba weer bee ñëw boo ma woowee rek ma xam ma yow la ñu waxante woon ndax damaa bëgg ñi may jëflanteeg ñoom di jëflante ci teeg bakkan. Hmm. waaw ma war a julli. Hmm. nekk taalibe Cheikh Seydi Ahmad Tidiane war a laazim hmm. nga xam ne euh, farata la ci tarixa bi hmm. chaque jour nga jàng ñaari isib alquran hmm. bëgg añ bëgg réer bëgg ndékki say doomi ndaw yi nga bëgg leen jox tuuti temps di foo ak ñoom fa tabaarakallaahu te ay nit lañu munoo heure bi nga bëgg jot nga jotee ma ko ci mënta nekk loolu moom dama koy wax képp koo xam ne bëgg a jëfanteeg man ah. am ñoo xam ne fii senegal la ñu nekk di jóge seen kër yi ñëw di toog di ma rang ah, kon fa tabaarakallaahu li mënti am mooy ñu wax heure woo ma heure sangam hmm. boo ci boo bu jotee nga woo ma ci heure boobu ñu jëfandikoo waaye bu dee man 22h laa mën di jàppandi. Hmm. nga xam ne ci laay féex wala 23h. Hmm. yow 23h nit ma rappelé ko moom du jàppandi. mu wax ma ni ma sëñ maa ngi lay ba sonn jotuma la ma ne ko sànq bi ma la wooyee foo nekkoon. kon yàlla moo bind doomu aadama ak jàpp. Uh-huh. des fois nga toll ci ay message yoo xam ni. wallaay mënoo ko mënoo ko jëfandikoo. des fois nga toog sa téléphone di xool koo xam ne ba mu ko def na un billaahi lazi laa laa ilaaha illaa hu sutura yàlla la yàlla moo dogal ci jaamu yàlla yoo xam ni mm-hmm. gëm nañu Serigne Jibril Niang moom la ñu gëm ci lépp moom la ñu wóolu ci lépp mm-hmm. loolu du man innal fadala bi yadi laa yuutihi man yasha mm-hmm. ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yàlla moo koy defal ku ko neex des fois yàkkam ni la sëñ mënumaa xaar dama bëgg nga faj ma la xoolil beneen sëriñ nga dem bu ma ko waxati <laughs> yaa ma doy gis naa ñëpp yow laa man kay xaaral ma jëm a xaaral wala nga jéem a gaawe kon fa tabaarakallaahu faiblesse sexuelle dañ ko gëstu comme ni ñu ko war a gëstee waaye mu nekk feebar boo xam ne bari na sëriñ bu koy wax sax doo bëgg dudul mu ñëw nga faj ko sëriñ bi wax feebar da ngay xam ni kii da kaa am bu bu toog ci télé di wax feebar faiblesse sexuelle nga xam ni kii daa war a ji tamam mu ni mu ni da koy faj nga xam ni kii daa a faju ji ndax am na loo xam ne doomu aadama bu koy wax ay manifestation yu bi gis si boppam rek lay wax waaye waxul lu mu faiblesse sexuelle mooy feebar bi. Hmm. mooy faiblesse sexuelle. nga dafa am yu nekk ci biir yoo xam ne moo bu dajee dañ naan faiblesse sexuelle wala boo ci amee benn ñu ni faiblesse sexuelle mooy faible ci wàllu sex ñu ni faiblesse sexuelle noonu la amee faiblesse mentale mën nga am faiblesse ci yeneen hormones yu dul sexe. kon xanaa kon faiblesse sexuelle ni ni ni ni sa bopp di metti nga war a faju noonu. noonu rek la mel du feebar bu rëy mais nag ñu Sénégal sexe moo nekk tabu. sexe la ñu rus di wax. tey boo doon di wax faiblesse sexuelle rek dafa am bëri yu ñu doon xoolee. Mhm. sama émission yi ma def ñu foo toll félicitation yi kenn mu toll. ñu ne sëñ bi liñ ci mus wax nii ci faiblesse sexuelle rus nañ mus nañu dégg musuñoo dégg sax ku ko wax. Mhm. xam nga faiblesse sexuelle ci boppam mooy feebar bi. Mhm. ki am faible ci côté sexuel mën na nekk sexe boo xam ne du jug. aaro boo xam day nelaw rek du jug. lu naa ñëw ci li koy bàyyi ma wax la ba bàyyi ma tasa la faiblesse sexuelle ba nga comprendre. <laughs> am na koo xam ne ci côté faiblesse sexuelle bi. Mhm. dana jug sax. Mhm. waaye du dëgër. am na koo xam ni fa tabaarakallaahu dana jug dana dëgër mais day gaaw a yegg. moom la ñuy wax éjaculation précoce gaaw a yegg. yëpp ci feebar ki dul jug ki dul jug moom moo tudd fonction érectile. problème érection la moom ki xam day jug te du dëgër tamit moom dysfonctionnement érectile la am maanaam moom day jug te du dëgër ba tey érection bi moo am problème lépp ci faiblesse sexuelle la dugg day jug te du dëgër. am na koo xam ne moom foto fa tabaarakala heure bu jugee dëgër waaye bu sexe wàccee da nga seetlu muy rétrécé wu ara bi mel ni luy dugg di di di boq bokk uh-huh. nga xam ne bu tiimee boppam sax am kersa mooy tudd aw la buy dellu buy rétrécé wu mel ni luy dugg. loolu ba tey fa tabaarakallaahu ci faible section la bokk wax naa la ki nga xam ne du jugal moom wax naa la ki nga xam ne ki dul jugal moom la olof daan wax tële moom daa tële carrément mm-hmm. wax naa la ki nga xam ne bu jugee du dëgër mm-hmm. ni war a dëgëree am na koo xam dana jug dana dëgër waaye day gaaw a daanu mm-hmm. mooy précoce am na koo xam ne awra bi fa tabaarakallaahu euh, mooy dellu di rétrécir mel ni luy dugg moom la ñuy wax ni xëy na euh, bokkut ak sax ba tey awra bu tuuti am na koo xam ne awra bu jugee day tuuti bu wàccee moom doo fa gis dara waaw. <laughs> la mag ñu naan awra bu gàtt moo gën naqum neen nam war a mel ci awra melu ko foofu laa wax ni góor naa soo waxtaan ma ni góor bu am awra awra bu tuuti mën na jox jigéen ñëpp bànneex waaye buy sëgg buy sëyeeg jigéen ñi dafa am position mën a sëyeeg ñoom ndax sexe su jigéen ni ko yàlla bindee mm. euh, fa tabaarakallaahu bokkul jigéen ñi dañoo wute ni ñu wutee noonu la sexe yi wutee hmm. annaasu muxtalifuuna hmm. yàlla moo dogal nit ñi ñu wute hmm. nga dégg euh, fa tabaaraka am na koo xam ni dana jug dana dëgër mën na seeg yow sax du kooku dafa am luñ naan fa tabaarakal sperme moo dul ñëw sperme la amul moom am na nit dana ñàkk sperme waaw bare na ak a bari wala bu ñuy génne toq la ciy génne fa bu ñu fa duggee sax dañuy dugg ci wàllu am doom waaye naa la may beneen jotaay boo xam ne dañu dugg ci wàllu am doom waaye boobu ba tey ci faiblesse sexuelle la waaw ndax spécialiste en faiblesse sexuelle rek moo mën a faj loolu am na koo xam ne ni ni sperme di tuuroo da yow sax da ngay jaaxle boo ko defoon ci kopp mu fees ko sperme bee bari. kooku mais na war moom la wax jooru day tuur tuur gëpp day jooru waaw da ngay dégg ñu ko wax xamuñu ko loolu tudd jooru day tuur tuuru gëpp léegi nag fa tabaarakallaahu am na loo xam ni euh, ci wàllu faiblesse sexuelle am na koo xam ne bu xasee ba am benn moom bu wàccee day mel ni ku ñu yet kooku it faiblesse sexuelle la. faiblesse la ah góor sëy sëy ba pare mel ni ko feebar sëy ba pare mënut a waxtaan ak sax jabaram day bëgg tëdd nelaw rek. Uh-huh. am na koo xam ne bu day jugal moom ba mu dëgër. Uh-huh. waaye bu yeggee ba ci soxna si fa tabaarakallaa bu mel ni affaire day wàccaat. loolu it ci la parce que sexe bi moo mënta moo mënta tenir éja moo mënta tenir érection bu yàgg. léegi nag bu ma la waxalee li yëpp nga xam ne mooy faiblesse sexuelle ma ñëw indi la ci cause yi. <laughs> fa tabaarakallaahu ci cause yi li ci jiitu. bokk na ci cause yi. Mhm. te wuñ ko wax muy euh, fa tabaarakallaahu euh, masturbation. moo tax maa ngi wax góor ñi. Mhm. nañu bàyyi foowe seen bopp. fukk góor yoo jël juróom-ñett yépp masturbation moo leen jox fa tabaarakallaahu faiblesse sexuelle. mooy foowe sa mooy foowe sa bopp. li muy li muy toj dëkk bi kenn xamul nu mu toll. Hmm. waaw. am na ñoo xam ne fa tabaarakallaahu ci wàllu faiblesse sexuelle cigarette moo leen ko jox. tox li muy def kenn xamul nu mu toll. day joxe néew kàtt. mi ngi toj dëkk bi am na ñoo xam ne fa tabaarakallaahu ndox mu siti moo leen ko def. Hmm. am na ñoo xam ne fa tabaarakallaahu hémorroïde moo leen ko def. Hmm. na ñoo xam ne jabet moo leen ko def. Hmm. waaye am na ñoo xam ne xeetu garab yi ñuy jël moo leen ko jox. garab la garabu hôpital. yii la médecin bindal ni bari na garab yoo xam ne du la faj mu ko fekk waccul dégâts ci yow te dégâts yi muy wàcc ci yenn góor ñi euh, fa tabaarakallaahu yenn xeetu traitement yi jël ci yenn xeetu feebar yi ñu am faiblesse sexuelle da cay bokk. sëriñ bi xanaa yow nii da nga bëgg sax delloo médecin bi xeer leen sànni. déedéet ah yow am na loo xam ne sax mënee su ko dugg ndax ñun concurrence su defante wu ñun ay taalibe doomu daara la ñu am alquran la ñu am. Hmm. daara la ñu am. Euh, defante wuñoo kenn. Hmm. waaye bari na médecin yu ci ëpp duñ sax jël garab lu ma xam laay wax. garab gi ni bindal nit ñi du ma ko jël ñoom duñ ko jël. bari na médecin yu bari garab yi ñuy bindal duñ ko jël médecin médecin gaaw te jël garab de <laughs> déedéet te maa defi kii konk hmm. faiblesse sexuelle hmm. kenn mënu ko faj lu dul ci lu dul naturel yi déedéet da kaa mën calmant rek lañ lay jox calmant rek a fa am traitement bu la mënti jox bu ñu wàccee ci traitement bi moom mu ñëwaat. man bu ma la jëlee jëlelee sama traitement lum dee dee dee dee dee dee dee da nga toog lum dee dee quinze ans wala dix ans xam ne doo soxlaati garab xanaa nga masturbé waat wala nga continuer di di fa tabaarakallaa di toxaat wala yenn xeet yi la daloon ba mu dalaat la émérite bu yeewaat wala ndox mu siti bu bu jeexagul ci yaram yooyu moo mën a tax faiblesse bi ñëwaat ci yow waa dañ koy faj ba mu jeex ci yaramu doomu adama te nag bari na ci nag nit ki ne la sama awra dafa gàtt maa bëgg mu yokk foofu da ci taxaw jasab sax mënuñoo yokk awra déglu ma bu baax li ma lay wax <laughs> ah ñu demoon jasab laay waxal jasab laa wax mënuñoo yokk awra na leer naa ñu nag sëñ Jibril maanaam yokk awra dafa mënta ne wala nax dégg dégg nañ ci sëriñ su wér a toog ni dañ koy yokk dañuy fen rek dañ ma baal waxuñu dëgg jasab amul kenn ku demee jasab sa awra yokkoo fa amul benn sëriñ bu la a jox produit sa awra yokkoo fa dama bëgg nga déglu baax li ma lay wax. kon liy xew lal la. mu ni lii xew ndax am am na am na tamit ñu yokk ñu yokk lu ñoo xam ne xëy na. yokk nañu est-ce que ba mu yokk xam nga yokk taxut a yokk li jox la nga ci diw ba gis mu yokk taxut a yokk. kon xanaa problème de psychologie la. problème de xam nga problème lan la. Mhm. yàlla moo bind doomu aadama waxoon naa beneen wax ci sama émission ni leen bu kenn yokkulu te insha allah rek bari na produit bu ñu lay naa la dee ko diw si sa awra day màgg wala day yokk produit boobu lam lay jural ci gàllankoor kenn xamul nu mu toll leer laa lay wax <laughs> yokk léegi awra léegi léegi léegi léegi mu yokkulu <laughs> ay cuun yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu yàlla dolli sutura ah, fa tabaarakallaahu xam nga nit mhm. bari na looy am na nit ñoo xam ne mën nañ la ci seede mhm. te da nga dégg seede yi mhm. na ñu bari dem nañ ba jeesab te yokkuluñu doo dégg ku ñu la man jeesab laa yokkuloo doo ko dégg doo ko dégg ku ne man diwoo ma jox ma yokkulu xam nga lu fi am mooy mu dëgër këj mu dëgër léegi léegi macha comme que sëñ Jibril dégg nañ nga ni. tax bañ a mën a gaaw a daanu. ah looloo intéressant. looloo ci am solo moo jafe di dëgër comme mat looloo jafe ci awra dëgër comme mat a jafe ba pare nga mën a di tenir bañ a gaaw a daanu. ak boo daanu mën a jógaat xeetu jigéen ju mënti doon. Mhm. xeetu jigéen ju mënti doon mën nga ko jox bànneex kon yàlla yàlla dolli sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah kon <laughs> yéen ñi def xel seen xel yokkulu seen jibril dégg ngeen nee na wax fa dëgg yàlla mënta ne du jasab du feneen kon léegi seen jibril macha allah faiblesse sexuelle nag nekk feebar bi nga xam ni wax nga lan mooy lan mooy feebar bi wax nga cause yi léegi yan mooy conséquence su feebar bi après ci lan la mën a aboutir waaw fa tabaarakallaahu xam nga faiblesse sexuelle lim la mën a jëral lim la mën a jural li ci gën a soof mhm. mooy doo nekk yow da ngay ñàkk confiance en soi sa liggéey sax mën na la ci dàq da ngay toog di stressé wu lu bari. Hmm. day mel ne yow daal da ngay jàpp ni nit ñi xam nañ ko waaw. ba pare li ci gën a soof da ngay xam ni sa jabar fa tabaarakallaahu respect bi day dañ day dañ ndax faral naa di wax naan bu dee ceeb am na kër baay. Hmm. laax am na kër papa. Hmm. téléphone bu rafet nit maraan na nit may ko ko. waaye oto bu rafet fa tabaarakallaahu nit may na ko nit a takk ko. waaye jigéen boo ko takkee indi ko sa kër daa am tax. dëkkoo ci sëy la ci àqu sëy la bokk. Mm-hmm. sa jabar ni la war a respecté doo ko du la ko respecté wala sax nga ñàkk sa jabar wala muy wëri leneen. mooy di njaalo bokk na ko bari na bari ci lu ci ëpp. Mm-hmm. bari na lu ci ëpp. Mm-hmm. da ngay dem fa tabaarakallaahu ba toog tiim war a liggéey. sa xel di xalaat yeneen. kon euh, ñoo ngi wax nit ñi fa tabaarakallaahu du feebar boo xam ni. Euh, gàcce la déedéet. Mm-hmm. te maa ngi lay wax dara ci feebar bi. Mm-hmm. Euh, yenn xeetu lekk yi ñuy lekk nga xam ne doo ko xam. Mm-hmm. muy fast food yeeg fa tabaarakallaahu yenn soxna yi bouillon yi ñuy toggee ci kër yi doo xam lépp. bari na yenn mélange yu def ci togg mënoo xam lépp. am na góor ñu ko da ngay koo xam ne fooyewul boppam. du sëy lu bari. ci jabaram la xamee jigéen. fa tabaarakallaahu du dox kat du tox. te amul jabet amul ndox mu siti amul émeri ba pare am feebar bi. nga xam ni kooku fa tabaarakallaahu Euh, nourriture am moo seewul hmm. li muy lekk moo wirul hmm. moo tax mu am faiblesse sexuelle hmm. te góor bari na néew na feebar bu mu amul te répercuté wul ci sexe feebar ay sidit la te deret yëpp ci sidit lay daw te li lekk ci ci ci dund mooy mujj soppaliku fa tabaarakallaahu nekk nekk nekk suñuy suux ak suñuy deret gannaaw li génn dem déchet moo tax góor néew na feebar bu mu amul bu mu am te répercuté wul ci wàllu faiblesse sexuelle kon nga xam ne faiblesse sexuelle du caaxaan feebar la boo xam ni fa tabaarakallaahu euh, mën nañ ni mooy ndeyu feebar yëpp moo tax koo gis mu ndox mu siti day am faiblesse góor koo gis mu day am feebar sexuelle hmm. euh, yàlla nag fa tabaarakallaahu mooy bind doomu aadama hmm. kom daal demal faju ji comme sa bopp buy métti rek waaw kom daal demal faju ji waaye da gis góor ñoo xam ni dañoo dëgg xeetu dëgër bopp boo xam ni dëgg leen sax yërëm seen jabar mooy ñëw di leen jël si traitement bi di ko jox am na ñoo xam sax jabar jiyee ñëw ba pare ñoo pour ñu jël ko da koy jéem a mélanger ay buy wala ay yeneen pour ñoom ñu jël ko waaye ñoom dañ koy bañ sax jël dafa am góor ñu dëgër bopp waaye man du ma faju nangam nangam mooy loolu. loolu musiba la foog nañu sax faju ñàkk fayda la. fekk feebar. <laughs> te fajooy am fayda. <laughs> dëgg la. bu la leeree ni yow lii la ko teg lu naturel la xamoo lan la. Hmm. bu la leer sax da ngaa dal la mais faju jël rek ndax góor kattan. dëgg la góor daa war a mel ni ci këram gaynde. Hmm. góor daa war a mel ni ci këram gaynde. Hmm. kon fa tabaarakallaahu des fois nag nit woo ma ni ma bi damay jël damay jël soxna tey tey soxlaw ma traitement damaa bëgg lu ma tàngal léegi léegi ma jox la sama traitement bi tudd doole góor wala na boo xam ne. doole góor la tudd. wala gaynde kuy ceetal rek moo ko tax a jóg wala gaynde gi. boobu pour effet immédiat. kuy ceetal rek a ko tax a jóg ñu xamante tey tey nga war a jël sa soxna tey tey tey. maanaam urgence. am na koo xam ni dafa fa tabaarakallaahu dafa jógewoon ba bitim réew. Mm-hmm. woo ñëw ñu jox ko soxnaam ñu nekk ci hôtel bi. Mm-hmm. mënu ci dara. sept heures du matin mu woo ma kooku da nekk di ko defal da ko yónnee doole góor bi wala nga yónnee ko gaynde gi mu naan ko mel ni gaynde <laughs> kon fa tabaarakallaahu yàlla yàlla dolli sutura. léegi ma macha allah sëriñ bi comme ni nga ko waxee léegi bu fekkee nag conséquences yooyu la mën a jur. Mhm. léegi nag après lan mooy solution bi lan la góor ñi mën a def bu ko defee nag mu bañ la dal wala it bu la dalee après nan ngay def. Ah, fa tabaarakallaahu liñ mën a wax rek mooy nañu maytu. tux hmm. cigarette su bari hmm. xam nga tux mu bari bi hmm. ñoom ñu ko bind sax war nañ ko dëgg la de cigarette su bari baaxul li mën a indi faiblesse sexuelle ci gën a tuuti ñu maytu fa tabaarakallaa fooyee sa bopp waaye ñu maytu sëy gu bari sëy gu bari waaw day joxe faiblesse sexuelle ah, na loo xam ne nag wax dëgg yàlla ku ko dëkkee moom yegg garage moom tey ndey faatu suba kumba ginnaaw suba ayda ginnaaw suba roqoye waaye doo mën ci doo mën ci assumi dara nag waay ah mais rek sëriñ bi am na borom xam-xam yoo xam ne ay scientifique lan ñu ni loolu day jox kàttan góor même sax masturbation bi nga wax am na ñu ni dafa baax ci góor. Euh, fa tabaarakallaahu xam nga masturbation. Mhm. mënul baax ci góor déjà rek loxo tooke la. Ah. loxo rek tooke la loxo rek tooke la. Hmm. masturbation non seulement day baloo si day tax ngay gën a gaaw a yegg waaye day tere sexe bi màgg. sexe day màgg waaw awra day màgg. ah waaye cuun awra bi ngay am boo amee sept ans ah. daa bokk ak bi ngay am boo amee trente sept ans bokkul màgg na di màgg na moo tax ma ne la am na loo xam ne luy màggloo awra la hmm. dama koy faral di jox sama taalibe yi hmm. loo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo pour seen awra yi du yokk déedéet màgg ak yokk benn la cuun yow da ngaa yokk wala ngaa màgg <laughs> de ci jëmm moo tax sax may wax uh-huh. da ngaa yokk ci jëmm wala màgg dama màgg da ngaa màgg uh-huh. màgg lu normal la yokk moo jaadu yokk yokk moom fa ci wàllu sexe. Mm-hmm. opération rek nga ko mën. opération rek nga ko mën te terewul dañ ciy def ay yeneen artificiel am na fu ñuy garafe taf ca bu pare mu ne nag mel ni luñ bàndaas mooy yenn awra yi ngay gis yu mel ni yu mbaq mm-hmm. day mbaqe. Mm-hmm. waaw day mel ni day duuf waaw te ñu maytu nag it lekk lu niin rek tëdd. Uh-huh. baaxul. ay koo gis rek mu jël jékki-jékki rek am surpoids euh, poids bu bari mhm. baaxul graisse googu noonu fa tabaarakallaahu gu bari ci yaram mhm. day tax day day indi sax fonction érectile day tax doo mën a doo mën a doo mën a érectionné doo mën doo mën a jugal ni mu waree mhm. awra dafa war a jug bu jugee dëgër yaa ngi dégg dëgër dafa war a mel ni mat te nit ki buy sëy dafa war a yàgg te awra bu jugee daa war a siggi waaw awra bu jógee daa war a siggi awra nii lay def waaw mënoo jug mënut a jug ba pare sëg jug kay jug jug jug ci am waaw te fa tabaarakallaahu borom awra bu dëgër ni ngay xamee ni feebar na mooy normalement booy seeg sa soxna waroo jàpp awra bi di ko dugal déedéet awra kenn du ko may doole bu amee doole boppam rek moo war a dugalal boppam dañuy jàngale uh-huh. la xayaa fi diin a amul kersa mm. te fa tabaraka lii sunu dund la bokk mm. ndax sëy mooy tax ñu am doom di dëgg la de ah sunu doom yi nu ñëpp am ko <laughs> tax ñu am doom amul usine bu ko fi def déedéet kon fa tabaraka laaw sëy la ñuy jàngi ci diine la bokk mm. moo tax duñ ko duñ ko wutal kersa dañuy waxtaan mu leer waaw awa kenn du ko jàpp di ko dugal déedéet mooy dugalal boppam bu maree ni mu war a mel dëgër kon fa tabarakallaahu euh, am na nag ci do ci daara euh, fa tabarakallaahu bi nekkee ci daara li ma njëkk xam ci wàllu Euh, faiblesse sexuelle li koy faj boobu maa ngi daara jëm lu ñuy bind ci ñambi la. ñàmbi gi waaw. loolu moom fa tabaarakallaa boo ko bindee ci ñambi moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, moom dangay ngay sëy nu la neexe uh-huh. waaw da ngay sëy nu la neexee. dangay xool ñàmbi goo bëgg nam toll nga ñëw indi ko ñu bindale ci loolu. nga seetlu ni sa awra ni ngay gën a màggee muy dem di dem ba gën a toll noonu loolu màgg la bokkut ak yokk ay jox produit diw ko ci nii mu màgg mu yokku bari na ñu bari bu ñu ko ci defee li ñu leen fekk seen awra sax mënoo ko xam déedéet da sa awra bi di neewi di awra bi di neewi ah parce que xamoo lan lan nga ci diw cëru doomu adama yàlla ko bind. Hmm. yàllaa ko bind ni war a toll mi ngi mel ne yow sa jëmm ji ni mu toll xam nga awra jëmm la. Hmm. cër la ci nit cër la ci nit de. moom awra waaw mi ngi mel ne sama loxo bi ma hmm. dama koy yokk. tey ma yokk tey tey ma yokk. moog ñu yokk ñu yokk ween ñoo yem da nga toog ba sax gis nit ki weenam bi tàmbalee mu mel ne ay cancer wala ñu yokk taat nga toog ba sax gis sa taat yi néew ay picc ay góom. Hmm. parce que produit bi ñu ciy diw produit chimique la kenn xamul la la te dama lay wax ni la faiblesse sexuelle ku la wax ni beneen mën na ko fa faj lu naturel waxul dëgg. te musu maa jox kenn sama garab ba nga gis effet secondaire du am moom. mais man dégg naa am na sëriñ soo xam dañuy jël ay aphrodisiaque di ko def seen mélange. am na mooy lay jox léegi-léegi nga tàng léegi-léegi. waaye bu ñu paree dañ lay dañ lay tural ay gàllankoor dañuy dem jënd ay garab dëbb ko boole ko ay sunguf am na. xam nga yaa ngi ma wax ni ma dañ gis nga waxtaan ci wàllu faiblesse sexuelle. Uh-huh. am na sëriñ yoo xam dañuy ñëw di jënd ci man ci garab gi. dafa numéro bu xamul da xam ni kii da koy commercial waale te rek. maanaam soxla ci quantité. woola ni la damaa soxla dix traitement. waaw ah ma facturé la jàpp sama ñaambur waaye bi ñu demee xam ne dañ koy joxe jiwaat. Uh-huh. ñu jàpp suñu ñaambur ñu nit am na loo xam ne boo ko soxlaa duñ la ko defal yow nit war dama damaa soxla dix traitement damaa soxla quinze. ma ne ah kii moom xanaa moom ay doomam ak ñëpp a ñëpp ñëpp ñëpp faible faible. wala man xëy na traitement boo xam ne boo ko jëlee doo ko soxlaati. Hmm. loo ci soxla quantité. waaye ma xam ni kii fajotul da ci da ci commerce. Hmm. dafa nit wala tamit damaa bëgg maa ngi ñu liggéey ci man la déedéet du am. moom fa tabaarakallaahu euh, am na benn góor gu ma daan wax naan ma moo tudd delloo ma samay 18 ans. kenn laa mënta jëflanteel ñaar moo a da nga may wax ni ma doole góor laa soxla wala gaynde ma jox la traitement boo xam da nga yëg sa bopp ci tàng-tàng wala nga ne ma damaa bëgg faj ma ba ma wér ma faj la nga wér amul kenn koo xam ne taxawuma jàkkaarloog yow ni la yow sa traitement mat na te wéroo amul à vous allah sëriñ bi léegi nag comme que offre de gàlla gis nañu nga def ci ay at yu bari macha allah te nag liggéey boo gis ci àdduna mën ta ñàkk gàllankoor mhm. yan moo ci ne say gàllankoor waaw fa tabaarakallaahu xëy na gàllankoor yi des fois mooy nit ki xam nga lu gën a métti imaginer nga yónnee nit ki ñaanam ba pare mhm. mu toog une semaine pour nga woo koy wax ko koy jëfandikoo ah. gàllankoor la coono nga in amel nga ko ak ñu ngi ñu ngi leen ciy jégal bu wér mhm. ndax alkamal lillah yàlla rek moo mat waaye yàlla dogal nañ ci biir une semaine yooyu xalwa bett nañu fi moo tax yàlla dogal nañ ci biir yooyu noonu wuy ji nañ fi suñu kilifa. Hmm. yàlla dogal nañ ci biir une semaine yooyu noonu jàpp nañ fi xeetu jàpp joo xam ni communiquer téléphone sax day jafe. Hmm. des fois nit tamit fa tabaarakallaahu yéex a jot ci garabam. te bëggoo di batale. te bëggoo di batale. Hmm. am na loo xam ne boo ko bëggee defal sa bopp ngir sellate. ndax fa tabaarakallaahu am na loo xam ne yow man xam yàlla du ko laaj samay njaboot de. ah déedéet ñi nga xam ne man lañ jox sama ma jël mbir mi jox ko gone gi ni ko demal yóbbul ma ko ci GP bi. wala fa tabaarakallaahu defaral ma lii defaral ma nangam déedéet. kii ma lekk alalam li may jëflanteeg moom yàlla man la koy laaj yowmal xiyam moo tax li may jëflante man maa ko war a defal àq gone gi nag mën na ma jàppale ci paquetel hmm. mën na ma jàppale mënu maa génn gp gp bu ne ba yóbbu ko hmm. waaye am na loo xam ne ci gp yi la hmm. dafaa nga jox nit garabu jaamur mu réeral ko ah sëriñ bi mënu ci dara mënu mënu ci dara ba pare nga nga mën a li ngay mooy woo gp bi mun naa la ma seet ko tey ma seet ko suba kooku da naa ko déglu ma rek ba mujj da ngay mujj defalaat ko beneen traitement yónnee ko defaa tamit nga jël euh, fa tabarakallah traitement yu bari am ñetti GP wala juróomi GP yuy dem Espagne ku ne nga jox ko traite garab mhm. waaye doo mën a xam GP bi nga ko jox ban mooy numéro loolu nag xëy na ñàkk organisation la woon mhm. waaye biñ ko tàmbalee xam euh, jëflanteeg yéen nit ñi bare ci euh, fa tabaarakallaahu dem na ba lu bare rek la nañ ko mhm. am na koo xam tamit da lay yónnee xaalisam waaye du ko sax déggaat ah, da lay déglu wala da lay déglu xëy na waaye loolu baaxul ki nga yónnee sa xaalis kay fa tabaarakallaa taxaw ci ba jot sa garab hmm. waaye da nga jàpp jàpp goo xam da nga toog mënu la sëñ bi un mois maa ngi di la déglu ma ne ko def nga xay <laughs> koo xam ne sax neexut a jot nga toog un mois di ko déglu def nga xay kon fa tabaarakallaa yooyu moo ciy xëy na jafe-jafe yi hmm. waaye ñun ciy jëflanteel ñu bari comprendre nañu da ngay gis koo xam day yónni sax njabootam mu ñëw ba ci kër gi waaye bu ñëwee ni ko la ilaha illallah kee la ma fa fekk hmm. kii kay mënu laatal mujj nga jox ko njabootam mu dem yóbbu ko moo tax des fois damay faral la ko mën a jëlsil waaye comme que affaire bi dafa xaw a doy waar da ngay bëgg sutura mm. ñu bari dañuy bëgg nga yónnee leen ko par GP da kilifa goo ne buy ñëw sa danaa la est mën naa fa ñëw appartement mm. moo tax sama kër du ma mu fees yenn fees yi bi may jox ñi may ñaanal bokk tak rendez bi may jox ñi may faj ah déedéet feebar bi ku koy faju daa daa soxla sutura nag waaw ah, kon yàlla yàlla doole sutura ci barke yonent bi moom daal euh, jàngoro boo xam ne la hmm. euh, fa tabaarakallaahu min na wér hmm. ndax yàlla amul benn saafara bu mu benn feebar bu mu bind hmm. lu dul indi na lu koy saafara moo tax yàlla mi nga xam ne ku mu xamal nga xam yàlla mi nga xam ne ku mu may nga am yàlla mi nga xam ne ku mu mënal nga mën dogal nañu Serigne Jibril Ñang fa tabaarakallaahu day faj feebar faiblesse sexuelle macha allah <laughs> yéen ko dégg du ku leen ko nettali yàgg na ci it ngir wax fa dëgg yàlla ay at a ngi nii ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi xool di ko seetlu waaye waxam ba léegi soppeekut ni benn jàngoro lay faj te du sida nee na du hémorroïde du ndoxum siti du lenn lu dul faiblesse sexuelle moo tax ñëpp ràññee ko ci euh, mu nekk ci spécialiste sëriñ bi macha allah comme que wax fa dëgg yàlla jëriñ xeet wi la. Mhm. sëriñ bi lan ngay may nag suñu internet yi loolu moom xëy na ñun ñoo la koy ñaan ñi nga xam ni ñoo ngi nii seetaan mënuñu jot ci sëñ Jibril mënuñu ko jot jokk wala it amuñu. wërsëg wala it crédit bi nangam lan nga leen di may daal. Eh, fa tabaarakallaahu danañ def maye de. Mm-hmm. danañ maye. Mm-hmm. waaye xëy na des fois nga maye. Mm-hmm. gis koo xam ne fa toog ma koy sàcc. waaye xam-xam maye rek la. mënoo ne damay maye lii na ko àll jëfandikoo bu ko diw jëfandikoo. dañu gis am na sëriñ boo xam ne ci jëfandikoo moom di def ay traitement am. fa tabaarakallaahu daal am na lu ñuy wax eh, dimbali. ak du dimbali ak dugóor ak dugóor mm-hmm. boo jëlee benn reenu dimbali wala mm-hmm. ko euh, fa tabaarakallaahu benn takku reenu dugóor bi jar euh, reenu dugóor nag moom mi ngi jar mille francs mm-hmm. dimbali kon mi ngi jar mille francs dugóor nag mi ngi jar euh, cent cinquante deux cent mille deux cent la fa tabaarakallaahu nga jël deux litres ndox baxal ko di ko naan fa tabaarakallaahu soxlul nga ñëw Serigne Jibril Niang du góor moom dootoo ko déggati doo góor dootoo ko déggati te dana la dimbali. <laughs> lu mag ñi daan fe lu mag ñi daan fajee la nag. Uh-huh. fa tabaarakallaahu bu dee koo xam ne amul jabet mën na ci boole keng. Uh-huh. wala amul estomac xam nga keng daa xaw a wex. Hmm. mën na ko ci boole. Hmm. ah soxla lu muy ñëw si sëñ Jibril ñang de. na toog fi mu toog déedéet damay faral di wax nit ñi rek ma amul njëriñ. Hmm. am na ñoo xam ne yàlla bind na leen te dogal kenn du leen ñaanal maa leen ñaanal. loolu moom daal damaa leer am na ñoo xam ne fi mu toll nii seen lépp sëriñ Jibril Ñaŋ moo moo leen ci doy mm. fa tabaarakallaa jaamu yàlla yi lay rek ñëw sukk say ron mm. sax xamoon noo leen def kon am na ñoo xam ne fa tabaarakallaa ñëwaat dañ lay sono rek boo mënee wax loo xam ne ci luy jëriñ mm. fa tabaar xëy na xam-xam du ko weer waaye nag am na koo xam ni moom léegi léegi léegi la may seetaan te guddi am na combat yorul lu ma mën a jox waaye bu demee mille deux cent mu mën mu mën a am gaynde tuyaa boobu damaa xam nu mu toll dimbali du góor keng fa tabaarakallaahu yàlla yàlla doolu sutura ci barke rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bu bëggee wér sax da ci boole farxañ ak sàllaali ak kayta bamb yàlla yàlla doolu sutura ci barke rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam macha allah sëñ Jibril la ni ko yàgg déggee nit ñi rank amul solo macha allah noonu la ko yàgg waxee nee na nit ñëpp di jariñu dong ko ñor kon sëriñ bi yàlla na sam borom jariñ ñëpp ci barke yonent bi léegi lan mooy sa kàddu gu mujj ah, di ñaan yàlla yàlla doole sutura yàlla na yàlla doole aar yàlla doole sàmm yàlla barkeel di wax ni njub rek moo ñu ñor hmm. dimbali xeetu Seydina Muhammad rek moo ñu ñor képp koo xam ne mosuñu jëflanteeg yow fa tabarakallahu ni ñu war a jëflantee jëflante ko ñu ngi lay jéglu mm-hmm. waaye boo ñu mënee fa tabarakallah contacté waat mm-hmm. euh, bu dee am na àq bu ñu war a suñu diggante ak yow ko mm-hmm. ndax ñaanu yàlla mukk dee yóbbaale àq ndax fa tabarakallah yoomal xiyaam yàlla danañu jàkkaarloog ñun ni baal naa la da ngay soxla da maa ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne mus naa jëflante ak ñoom seen xol seddul ci moo xam dama leen ñaanal yàlla wala ma faj leen ñu ni xëy na yee wéruñu wala fa tabarakallah seen garab jox joxuñu ko moo xam man ban fa tabaarakallaahu àq laa leen ameel maa ngi sàkku ci mbaaxu yàlla mm. ci barke yontu yàlla Muhammad buñ ma mënee contacté waat te yàlla tax mm. ba mën a seen àq yooyu noonu ma mën ko respecté ba keroog yomal xiyaam nga xam ne bu ma taxawee ci kanamu yàlla damay woyof toll ndax bëgg naa sàpp bii njëkk bi ànd ak rasulullahi ma bokk ci mm. ànd ak Cheikh Seydi a Tidiane Seydi Haaji Malick Cheikh Ahmadou Bamba dugg àjjana ñun ñëpp ñu ànd dugg àjjana kon maa ngi ñaan yàlla fa tabaarakallaahu képp koo xam ne jëflante na ak yow amale ñoo ngi jégalu ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam macha allah émission jotaayu xam-xam la saa su ne noonu lay demee Serigne Jibril ñu ngi koy gërëm macha allah ci disponibilité bi ngir wax fa dëgg yàlla jàngi ñëw di jëriñ ñu ñi ci xam-xam yombul kon wax fa dëgg yàlla dañ ko ciy santaat bu baax a baax ci opportunité bi mu nu may ñu mën leen bégal yéen ñu ni seetaan à travers rajo Dakar international kon ci un bëgg Bàmba la woon mu àndoon ak Serigne Jibril ci jotaayu xam-xam da leen di jox dig daje beneen yoon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh